amul kenn koo xamante ni day wër di dem fuñ ko seetal duñ ko gis mu ñëw fii te gisuñ fii moom buñ la seetalee bala ñoo pare yow si kii bopp yaa signal sa bopp ne gis nañ la façon gis boo xamante ni kenn mësula ko gis boobu mooy li si xaar waxaan ya da nga dégg nag kon damay seetee ramlu li may wax rek laay wax mën ko def këcc fi nag lenn mayu ko lu dul liggéey ismullaahil azam ci ngay mën a xamee alimul xabir yaa alimu yaa xabiru di nga ko liggéey yaa fataahu di nga ko liggéey mu ànd ak yeneen talsam yoo xamante ni ñoo jàpp ay tur rawxaan yoo xamante ni képp koo mën a seetal rawxaanam mënul génn foofu boo amee tur yaayam ak turam ci saasi da nga jàkkaloog rawxaanam lépp loo bëgg xam bokk laa ñu wax la ko ci saasi li may wax waxaat